abonnez ci notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez ci notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kasaladam sidi baram billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم ما سبق الناس الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المختار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أحمد شيخي واحضر لنا بهذا المحضر والتعطي فيه بنظرة تأتي لنا بظفره ñu ngi ñëw suñu darsu nasiha incha allah ñu ngi yemoon démb ci waxtu woo xamante ne jaam bi laabee na ci maaul xayb bi boobu te liñ jublu ci maa ul xay bi boobu mooy faydul aqdas faydul aqdas mooy faydu bi nga xamante ne moo gën a sell yaa ngi dégg mu ne waxtu woo xamante ne jaam bi laabe na ci loolu noonu dégg nga dafay dafay dafay eh, bëgg ngir yàlla dafay bañ ngir yàlla itam ak yeneen yu mel noonu loolu moo nekk ay jikkoom mu ne su fekkente ne nekk na noonu ci faydu jaam bi wàcc ci boobu eh, eh, xaal ci faydu boobu noonu mu ne su boobaa dangay gis jaam boobu dootu desete benn melo boo xamante ne melo bu ñuy ŋàññi la wala melo bu ñuy xas la ci jëmmam wala ci lenn ci jeexil itam yaa ngi dégg su ko defee jaam boobu noonu itam dafay des yaa ngi dégg des boo xamante ne des ak dégg nga eh, eh, eh, nit ñuy jubale lañ daal dégg nga des ñoo xamante ne des ak nit ñuy jubal ñi nit ñuy jubal lañ nit ñuy jubal dégg nga loolu moo tax. Euh, euh, taalibi boobu noonu war a dajale dégg nga laab googu nga xamante ne laab ak maa ul xëy bi la te mooy laab ak faydu yaa ngi dégg ngir mu mën a nekk ci bokk ci ñi nga xamante dañuy jub ba noppi te di jub dégg nga te loolu boo ko xamul rek moom mooy faydu bi nga xamante ne dégg nga faydu bu sell la waxtu wo ci sooboo nag waaw ah, Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ne laa yubqi min al mazmumaati la qalilan wala kathiran mu ne yi ñu ŋàññi jikko yi ñu ŋàññi su boobaa yow dootoo ci des ci dara moo xam jikko yu bari la wala ndaw la lu mën a xew rek yow dootoo ci maanaa doo ci des dara mu ne fa haada maaul xaybi alladi xassa taaliba alayhi wa amarahu bi tadxiri bihi mu ne loolu mooy maaul xaybi bi nga xamante ne moom la imaamul junaydi di wax tatahar bi maail xaybi maaul xaybi boobu mooy ma mooy ndox mi nga xamante ne moom la taalib bi dajale dégg nga waaye ñu digal ko itam na laabe ci ci ci ci ndoxu xay bu boobu noonu jëlee nañ ci Seyd Ahmad Sukayriji radiyallahu anhu mu jëlee ci borom xam-xam buñ tuddee xaraaf yi moom itam wax na ne wala suufi la sax dégg nga wax na ne tayammamtu bi saidi zamanan wal ana saqattu ala al maa'i loolu la xaraaf yi doon wax mu ne tayammamtu bi saidi zamanan mu man daan naa tiim ci pàkk yi dégg nga ay diru ay ay jamono jamono yu bare bare maa ngi tiim ci pàkk yi da nga pàkk yi li mu ci jublu mooy suuf si mooy kuy tiim xam nga ci suuf ngay tiimee dégg nga boo amul ndox da ngay tiim ci suuf si dégg nga mu ne man nag tiim naa ay jamono yu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ci pàkk yi ci suuf si dégg nga mu ne wal aana saqattu dégg nga alal maa yi mu ne tey nag dama daanu ci biir ndox mi tey daanu naa ci biir ndox mi kon wax ji lépp la mu ngi wane ne daan naa jàppee ci suuf yi daan naa tiimee ci suuf seeg waaye tey daanu naa ci biir ndox mi suuf si yaa ngi dégg mun na am dinañ ci ñëw ci ci ci bayit yi parce que moom la ñu tafsir jeex gut te taxaar bi maa el xay bi maa ba léegi ci lañ nekk dégg nga euh, léegi nag mu ne léegi daanu na ci ndox mi ndox moomu nag nga xamante ne dégg nga mu ne isla tajidu ma al xay bi wala taqdiru ala isticmaalihi illa bi soxbati ahli hada al ma mu ne ndox moom nga xamante ne kenn mënu koo am maa ul xay bi boobu kenn mënu koo am Euh, euh, munoo koo jëfandikoo itam wala taqdiru ala isticmaalihi munoo ko jëfandikoo abadan mu ne bi sohbati ahli hada al ma lu dul da ngaa ànd ak borom ndox yooyu borom ndox yooyu rek nga mën a àndal pour nga mën a jëfandikoo ndox mi pour nga mën a laabe ci ndox mi yaa ngi dégg pour nga mën a selle ci boobu ndox mu ne daan naa jàpp man ci pàkk yi lu yàgg yàgg yàgg yàgg waaye léegi daanu naa ci biir ndox mi <laughs> dégg nga radiyallahu anhu ndox moom nga xam ne mu ne alladina mooy ñi nga xam ne sharibuhu naan nañ ndox mi wa sakiru ñu mandi bihi ci moom su ma saxaw ñu dem ba yàgg mandite gi uri maanaam ñu mandite gi dañ min sakratim ci seen mandite googu noonu wa salaku ñu daal di soobu min jazbatihim maanaam ci xëcc gi leen xëcci yaa ngi dégg ñu daal di soobuwaat dégg nga jóge ko ci seen jazb googu noonu dégg nga mu ne fatu mallakahum zimaam amrika dégg nga mu ne nga dem ba yàgg sa sa sa sa sa noskaay ndigal yi nga teg ko ci ñoom dégg nga ñooñu mooy ñi nga xam ne dem nañ ba fannaawu nañ ci yàlla ginnaaw biñ ñu fannaawoo nag yaa ngi dégg nga gis ne nag léegi baqaa ñëw baqaa mooy mandité gi wuri bu mandité gi bu bu mandité gi wuree nga gis nag dañuy sóobuwaat beneen yoon yaa ngi dégg ngir lan ngir euh, euh, ñu man leen jox buum yi nga xamante ne mooy buumu ndigalu yàlla yi loolu mooy lan mooy nga dem ba sóobu nga génn ci mat majjuub nga dem dox ci xam-xamu yàlla bi nga dem ba yàgg da nga nga nekk koo xamante ne da ngay womati nag di jëme ci yàlla kooku mooy ki nga xamante ne da nga jox nañ ko zimaamu zimaamul amri maanaam noskaay ndigal yi da nga ñëw def ko mu muqaddam watan qaadu ilayhim bi kulliyatika su ko defee yow itam waxtu woo gisee ñooñu wala nga am leen dafa tam di ko nang leen moom loo zimaam amrika maanaam sa noskaay ndigal yi sa noskaay mbir sa mboole mi mbir dégg nga na euh, euh, na na na leen ko jox dégg nga waxtu woo gisee ñu mel noonu nga xamante ne naan nañ ci ndox mi mandi nañ ci ñu dem ba yàgg mandi gi wurite maanaam wuri ci seen mandite googu noonu ñu soobu ci yoonu jës bu di xëccin di leen jëma ci yàlla mu ne ñooñu boo leen gisee nag fatu mallikuhum jox leen zimaama amrika dégg nga maanaam sa sa say fu bopp yi comme ni ko Baye waxee ci ruuxul adab malikhu nafsaka falaatu dabbir jox ko sa bopp moom la ko sa bopp bu ko woon ginnaaw noonu itam la xarraaf yi waxee mu ne fa nu fatu mallikuhum zimaama amrika mu ne wa tanqaadu ilayhim nga womatu jëm ci ñoom bi kulliyatika sa lépp waxtu woo gisee ñu mel noonu na nga womatu jëm ci ñoom jox leen sa lépp baada an atlaaka allah ala xususiyatihim mu ne ginnaaw bi nga xamante ne yàlla feeñalal na la jagle yi nga xam ne yàlla jagleel na leen ko lan moo lan la leen yàlla jagleel mooy naan nañ ci ndox mi man mandi nañ seen mande gi dem na ba wureeku dégg nga soobu nañ ci yoonu jas bu nga xamante ni di xëcc nit ñi di la jëmmi ci yàlla mu ne boo gisee ñu mel noonu nag jébbal leen sa bopp léegi nag jébbal bi mooy li jafe pour nga joxe sa bopp léegi dëgg-dëgg moom mooy moom mooy li jafe ginnaaw bi nga xamee ne yàlla won na la ay jagle yi nga xamante ne yàlla jagleel na leen ko wa kashifa laka an asrarihim yàlla u ñerti na la seeni seeni seeni mboot fa shahidta lahum ruuxaka bi taqdimi dégg nga mu ne eh, nga seede ne sa ruux bi war nga koo jiital jëme ko ci ñoom nga jox leen ko dégg nga wa sirruka bi taadimi dégg nga sa mboot itam eh, eh, ci màggal yàlla subhanahu wa taala dégg nga fa tuqaddimahum amaamak nga jiital leen sa kanam dégg nga baada an kunta anta amaamahum ginnaaw ba nga nekkee seen kanam wa hum yatlubuunaka lil hadrati te ñoom ñu ngi la doon sàkku da nga ngir pays bi da nga eh, eh, na nga leen eh, jébbal sa bopp jaam bi su àggee foofu nag su boobaa nag dara waru ko lu fexe laabal boppam laabal boppam ci côté yëpp da nga ci ci sirroom laabal boppam ci ruuxoom laabal boppam ci ci ci lépp mu ne laab boobu nag wa amma tathiru bil faydil aqdas laab boobu ci faydu bu sell boobu noonu fa innahu yaati qahran ani tajalli ilahi na nga xam ne dafay ñëw ci nooteel tajalli yi pay yàlla bi tajalli la pay yàlla bi di def ci yow loolu moo lay yóbbee nga mën a laab ci faydu bu gën a sell boobu noonu dégg nga laa madxala fiihi lil abdi dégg nga mu ne su boobaa amut benn duggukaay ci jaam boobu noonu dégg nga eh, yahdimu qawaida rusumil bashariya mu ne waxtu defee dafay tëjël lii dégg nga ci ci ci ci ci jaam bi moom pe yàlla bi mu ne yahdimu dafay màbbal qawaida rusumil bashariya mboolem luy luy nite ci yow mboolem luy nite luy xeetu nit ci yow rek day gis ne daf koy màbbal daf koy dindi yaa ngi dégg ba mu ba mu ba mu seet wecc an yuxrijul abda an mulahadati ru'yatihi wa idrakatihi mu ne mu génne ci jaam bi yaa ngi dégg ci mulahada di settantal yaa ngi dégg ci ay ak yenn gis-gis yi ak yenn yëg-yëg yi wala yenn xam yi dégg nga yu laqi yi mu sànni ko fi bahri fanna il fanna ci géeju fanna ul fanna moom jaam bi waxtu laabee ci boobu boobu boobu boobu kii maanaam boobu géej yaa ngi dégg su boobaa nga gis nag yul xiixi ñu daal di ko sànni fii baxri fanna il fanna ci géeju fanna ul fanna wa yaqzifuhu yaa ngi dégg ñu ñu ñu ñu ñu euh, euh, ko dégg nga <coughs> euh, azam dégg nga wa siril akbar dégg nga ñu sànni ko kon wa yaqzifuhu ñu sànni ko dégg nga fil bahril azam ci géej gu mag bi wa siril akbar ak mbóot mu mag ne ñu sànni la foofu noonu al mushaara ilayhi mu ne sallallahu alayhi wa sallam bi qawli sallallahu alayhi wa sallam mu ne góoj géej gu mag googu ak sirru bu mag boobu nga xamante ne waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lay junju fi mu wax ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi dégg nga yàlla bind na aadama yaa ngi dégg ci ci ci ci ci meloom dégg nga ba noppi wa qadafahu mu sànni ko fii baxrihi maanaam ci géejam moo tax mu ne wa yaqdifu fi baxri mu sànni ko ci ci ci biir géejam bi yaa ngi dégg mu ne wa qawluhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam mu ne xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii l xadisul qudsi ci xadisul qudsi loolu la jàngale ba te naan lam tasaani ardi dégg nga wala samaa i yàlla wax na ne man as suuf gënut maa yaatu mukk asamaan itam gënut maa yaatu muk xajuma fa yaa ngi dégg mu ne wa yasa wa yasa wa yasauni waaye li ma gën a yaatu qalbu abdi al mu'min mooy xolu jaam bi nga xamante ne dëgg-dëgg eh, eh, eh, gëm na ma mu ne loolu moom mooy li ma gën a yaatu mu ne wa maani haadayn al xadisayni la tudraku bil lafzi mu ne maanaa wax ñaari hadis yii kenn mënu koo xam ci njàng du ci njàng koy xamee maanaam du ci ay kàddu rek wax naa ko nii rek jeex na nga xam ko déedéet hadis yi kenn mënu koo xam ci waxu neen neen wax nii nii rek jàngale naa ko parce que boo waxee inna allaha xalaqa aadama ala suratihi hii boobu noonu damir la boo xam ne dafay dellu ci aadama parce que boo jëlee damir bi nga dellu ko ci yàlla subhanahu wa taala wax ji du am sens mooy yàlla bind na aadama ci melo yàlla yaa ngi dégg waaye euh, euh, euh, damir bi dafay delluwaat ci ci ci ci ci yàlla dafay delluwaat ci yàlla kon subhanahu wa taala su fekkee ne da jël haa damir bi nga dellu ko ci aadama kon dégg nga dafa mel ni wax nga ne yàlla dafa bind boppam ci melo aadama dégg nga te fekk loolu euh, euh, mënti nekk yàlla dafa bind aadama ci melo yàlla subhaanahu wa taala yaa ngi dégg ko defee loolu moo tax ne hadis yi kenn mënu koo xam ci lafzu maanaam ci wax kese mënoo xam wala taksifu al ibaratu an maaniha shay'an yaa ngi dégg mu ne te dara manta mënta uñërti maanaaw hadis bi mënoo ko xam ci ay ibaraat dégg nga doo mënoo ko xam faw rek da ngay am sëriñ boo xamante ni daf lay womat ba àggale la ci xaqiqatu maqaama boobu noonu nga àgg ci inna allaha xalaqa aadama ala suratihi wa qazafahu fi bahri nga àgg foofu noonu nga àgg ci itam ci xadis bi yàlla di wax ne lam tasaani ardi wala samaai wa yasaani qalbu abdi dégg nga al mumin su booba waxtu wa àggee foofu noonu mu ne wa innama hiya asrarun aliyatun di nga xam ne lii ay mbóot yu kawe kawe la yaa ngi dégg wa fuyudun qudsiyatun dégg nga mu ne ay faydu la yoo xamante ne yu sell la yaa ngi dégg yahubbuha allahu liman ahabbahu wa astafahu min ibadihi mu ne yàlla daf koy may dégg nga daf koy uppal dégg nga ñeel ki nga xamante ne moom bëgg na ko moom yàlla subhanahu wa taala te yàlla tànn na ko ci ay jaamam mu ne ñooñu rek la yàlla di may loolu xam-xam yooyu ñooñu rek la yàlla di may faydu yu sell yooyu mu ne fa yudruku asraar haazayni hadisayni zawqan haqiqiyan mu ne moo lay yóbbee nga dem ba xam dëgg-dëgg mbóot yi nga xam ne moom la hadis yi lamboo ci mos zawqan haqiqiyan ci mos boo xamante ne mos bu dëggu la yaa ngi dégg wa idraakan yaqinan ak loo xam ne da nga ciy jot mu nekk certitude mu nekk yaqin mu nekk dëgg nga xam ne lii mooy dëgg dégg nga feeg àggoo foofu noonu munoo xam xaqiqatu yaa ngi dégg yi hadis mu ne su boobaa laa yuxtaaju fihi ila al ibaara su boobaa du jaar du jar ibaaraat toog di ay xalaat di def ay eh, ibaaraat non non su boobaa du ko jar parce que yëf yi dañ ci àgg ci maanaam zawku ci xam-xam boo xamante ne donc mos mo taxoon wala Thierno Sène dem doon wax ne man damay wax maanaam damay wax texte yi waaye ah, damaa xam bu tuunu texte yi loolu moo tax il faut faire très attention parce que bu fekkee ne nit ki mu ngi wax nga yaakaar ne kii ci làkku arab bi rek lay wax ci lay yem. dégg nga fekk déedéet ni muy waxee arab bi noonu lay liiree xaqiqatan jëmmi la muy wax jëmmi xam-xam bi parce que xam-xam bi mu ngi jàkkaarlu ak moom du lu ko fàddu yaa ngi dégg moo tax ceer nu doon wax ne man maa ngi waxee ci butuunu nusuus yi waaye yàlla xam bi daf maa ngi waxee ci ci ci ci eh, adilla ci nusuus yi man maa ngi waxee eh, ci ci ci ay ay adilla adilla mooy eh, dalil maa ngi am ay dalil ci texte yi mu waaye xam naa butuunu nusuus yi xam naa baatinu texte yi linga nga xamante ne moom la làmboo dégg kon loolu loolu loolu loolu waxtu woo demee nag bañ àggale la ci yooyu euh, maqaamaat su boobaa yow dootoo euh, wala yu taqaru dégg nga fii illa bil ishaar su boobaa du du du du aajo lu dut dégg nga ñu lay junju yaa ngi dégg ay ramzu ak ay yaa ngi de comme ni ko Baye waxoon xayaati kulluha rumuuzun wa isharatun mu ne wa bi sababi dalika yakunu aarifan billahi kaamilan mu ne ci sababu loolu nag ci ngay nekk aarif billahi kaamil nga xam ne ci rumuuz yi ak ishaara yi rek ci ngay ci ngay dem da nga wa abdan mahdan xaalisan nga nekk jaam boo xam ne jaam bu sell la waaye boo xam ne mbell ngay doon yaa ngi dégg <coughs> ci yooyu maqaamaat mu ne wa adraka bi sababi dalika tajallil akbar alladi la xadda lahu wala gaayatan mu ne su boobaa nag ci ngay xamee dëgg-dëgg tëjël lii bu mag bi nga xamante ne amul dayoo amul fii la yem dégg nga te amul amul amul dayoo yaa ngi dégg amul raaya amul jeexalit wa xaatal abd bi aynihi dégg nga su boobaa jaam bi daal di peeg ci jëmmam wa arafa bi sababi dalik mu xam ci sababu loolu wujuda dunia lan moo waral àddina bi am wa axira ak lan moo waral alaxira am feek duggoo ci loolu mënoo xam li tax àddina am mënoo xam itam lu tax alaxira am dégg nga mu wujudata ak lan moo tax yàlla amal ko lu tax yàlla amal liñ tuddee àddina ak liñ tuddee àllaaxira dégg nga feeg mosoo ci euh, euh, zawq boobu amoo ko mënoo xam lan mooy àddina mënoo xam lan mooy àllaaxira ndeke àllaaxira ak àddina lu ñuy xam la jaam bi du jékki-jékki rek naan waaw àddina nii àllaaxira nii dëgg-dëgg lu ñuy xam la ak lan la namm woo maasa yuraadu bihima lan la yàlla namm ci ñoom ñaar yaa ngi dégg lan mooy àddina lan mooy àllaaxira lu yàlla na ci ñoom ñaar feeg xamoo loolu feeg amoo xam-xamu zawqu xam-xam boo mos munoo àgg ci ci yooyu maqaamaat mu ne wa hada al faydu huwa tathiru l kaamil alladi man athara alayhi qiila fihi abdun wasilun mu ne eh, eh, faydu boobu dégg nga mooy faydu bi nga xamante ne mooy laab bu mat bi képp ku dugg foofu noonu yow laab nga laab bu mat yaa ngi dégg di dootu ci toppati dégg mu ne laab googu nag dégg nga képp koo xamante ne wala ndox moomu faydu boobu képp koo xamante ne tànk nga ci yaa ngi dégg mu ne yow lañ tuddee abdun waasilun jàmbu àgg bi yaa ngi dégg abdun waasilun jàmbu àgg bi su ko defee ñu ngi tënk fii nii eh, eh, eh, incha allah ba suba ñu continué waat allahumma salli ala sayyidina muhammadin حق قدري ومقداري العظيم لا اله bàyyi ne abal qalbu illa an yakuna mutayyama halifa gharani bi nabi muhayyama la ilaha illallah la ilaha illallah سهران منشدنا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 abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre kuñ fonnome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kesselo do sidi baram